tey dañ fi ñëwoon ci turu docteur Souleymane Soumaré mu yebal ñu fi euh, man ndawam laa maay conseiller technique am pour euh, représenter ko ci benn atelier boo xam ne ñun ñoo ko euh, ñaanoon pour que préfecture organiser ñu ko alhamdulilah ñu ngi sant yàlla yàlla nañ si bu baax di remercier au préfet ak équipe bi mu àndal ak vraiment tous les acteurs participants ci atelier bi ndax lañ sa doon xaar gis nañ ko dañ doon xaar indi ay information sur ay potentialités yoo xam ne dañ ko gis ci benn kayit bu ñuy wax plan de développement mais acteurs yi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci euh, plan boobu ñoom ñoo ñu wax ne tey lii ak lii ak lii mooy métier yi nga xam ne moom la gën a soxal nit jigéen ñi ak góor ñi métiers yi nag tey la ñuy tënk suñu demee nag def ci ay référentiel de titre titre bi nag soo ko xoolee benn genre euh, diplôme la boo xam ne ku ko yor rek foo ko wane dinañ xam ne kii mën na lii mën na lii mën na liggéey bi te kii ku ko jël ci catégorie bii nga koy classé ci convention collective tel nga koy jëlee ba nga xam ne nit ki soo ko jëlee rek moom jaratul sax négociation parce que parchemin bi mu lay wan moo lay wan ne kii lii la mën donc fii nga ko war a euh, joxe parchemin bi tam mën na permettre tamit yow sa bopp nga wutal sa bopp liggéey li muy li mu yokk par rapport ak attestation yi c'est que yow léegi bés booy liggéey di nga xam ne kat liggéeyu ma ngir dama ko xamantu nii rek dama liggéey ndax dama si am xam-xam bu wér muy titre bii ma yor donc su may facturer dinaa xam ne kat ah xam-xam nag dafa am njëg niroowul ak ki nga xam ne day liggéey rek soo paree nga nekk am njëgu goro déedéet su ñëwee dalay lay lii laa yor li ma lay liggéeyal nii yow mii si boppam xam nga ne liggéey bu wóor la parce que lii moo koy attesté donc su ma la facturé war nga maa fay loolu si loolu nag la ñu bëgg vraiment egsi ba nga xam ne titre yi dina gën a wasaaroo parce que li si neex mooy du formation yu yàgg formation yoo loo xam ne xëy na soree ba sore trois mois lay duré trois trois cents heures de formation donc ça veut dire que vraiment on mën nañ si tàggat ay xale yoo xam ne très rapidement dinañ mën a opérationnel mën a liggéey mën a euh, jëriñ seen seen seen seen bopp ak seen euh, waajur. waaw mbënn bi vraiment bi mu taraatee dañu jekki rek sunu directeur général wooñu réunion mu ne daal moom dafa xalaat ne ONFP am na rôle bu mu war a jouer pour xeex mbënd mi ñu ne ko lan la mu ne parce que mbënn mi soo seetloo ba seetlu ñi fay dem mbën mbëkk mbëkk bi mbëkk bi mbëkk bi pardon mbëkk bi mbëkk bi soo ko seetloo ba seetlu ñi fay nekk di fa dem soo ko xoolee amuñu qualification bi permettre ñu mën a dem liggéey ndax suñu amoon qualification defe naa nañ waa dinañ jaar si waa normal ñu ne xale yi nag soo leen buggee téye il faut nga jox leen qualification qualification boobu tam il faut mu méngoog ñoom li ñu bëgg ak li ñu mën loolu nag la titre bi di eh, jëriñ ndax soo ko ko joxee rek fu mu dem di wut liggéey dinañ xam ne kii mën na liggéey moom si boppam suy liggéeyal boppam di di si tedd aussi dina xam ne kat lii may liggéey am na njëriñ parce que xam-xam a ko lal donc loolu la ñun daal am nañ xalaat ne am nañ pàcc bu rëy bu ñu war a jouer si affaire mbëkk bi li tax sax mu gën ñoo neex mooy ministère bi léegi dafa tudd ministère de l'emploi de la formation professionnelle et de l'insertion insertion moom mooy vraiment nit ki soo ko tàggatee ba pare nga gunge ko jàppale ko ba mu am fu mu téye ndax fi mu téye mën na nekk fu ñu koy jël di ko fay weer waaye fi mu téye itam mën na nekk foo xam ne moom si boppam gunge nga ko ba mu mën a demal boppam donc loolu daal dañu xalaat ne ONFP am na ko lu mu mën a xeex si mbëkk bi